effectivement gis nañ ko mais première en impression bi ma ci njëkk am mooy xam nga déjà camp ñoom ñi nga xam ne ñoom lañu fay dugal ñooy ñooy ñi nga xam ne dañ leen dañ leen condamné. Mm-hmm. bi ñu leen condamné ba pare ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu mett leen à euh, ci disposition wu camp dugal leen fa nest pas. donc ñoom déjà euh, dañuy nekk ci benn situation boo xam ni. si situation bu vulnérable la. parce que mm-hmm. déjà amatoo liberté rek déjà yaa ngi ci situation bu vulnérable benn. nonobstant nag euh, euh, parce que fii dootoo mën a wax présomption d'innocence parce que jugé nañ la ba condamné la mm-hmm. mais fii teewul dangay ngay garder également sa dignité humaine n'est-ce pas xam nga nit moom dafay dignité humaine moom ba buy génn àdduna sax dafay yóbbaale dafay yóbbaale dignité am mhm. parce que loolu tax même dans les religions bu dee l'islam dañ lay sang defal la parfum yëpp bu dee dans les autres religions ñu solo la pour war na ni dignité humaine la parce que boo xoolee côté défenseur des droits humains même alxuraan moo ko njëkk indi wala xadd karam naa ba ni aadama du dëgg donc euh, donc alxuraan moo njëkk a consacré défense moo njëkk a consacré la protection et la préservation de la dignité humaine mhm. nest léegi bi nga bi nga xamee ni mutinerie bi am na parce que dafa am dans un contexte boo xam ne ñuy wax les réformes judiciaires mm, ñun buñ waa réforme de la justice ak modernisation bi nga xamee ni ñu ngi fa euh, gis nañ ñu bëri parce que détenu ancien détenu yi ñu ngi fa woon mm-hmm. ancien détenu yi ñu ngi fa woon ñoom nag révélé nañu lu bëri ci laa xam ne nag problème am na entre ñoom ak administration pénitentiaire te loolu problème la boo xam ne soulevé nañ ko te ci rapport yi euh, mi ngi ci inséré nañ ko te bu bés bu ñu ko bés bu ñu ko bés bu ko buñ ko yóbboo ci président présenté ko ba ñuy def ay réformes devant l'Assemblée nationale wala yeneen dinañ ko prendre en compte parce que ci détenu yi nga doon déggee ni ñu ne ñoom am na ci am na ci euh, yenn membre administration pénitentiaire do du question dañ koy jox dëgg mais dañuy dañuy rapporter rek li ñu wax bu ñu amee xew par exemple euh, bu ñuy togg ay beñeeg yooyu détenu yi ñoom ñoo koy defar n'est-ce pas ñoom ñoo koy defar si Euh, jéem naa leen sax laaj leen est-ce que ñoom dañ leen di fay wala pour neexal leen yooyu mais amuñu woon temps bi pour discuter ci loolu beneen bi am na si ñoo xam ne ñu ni ñoom bu ñu amee fóot des fois détenu ñoom ñoo koy indi dañ koy fóot ñu ne foofu dafa xaw a nekk benn tuuti genre peut-être influence boo xam ne dañ koy dañ koy am ci yow mais ñoom aussi dañuy da ngay gis ni dañuy dañuy wax le contraire n'est-ce pas parce que ñoom aussi dañuy jéem a la dignité la dignité humaine nest pas ma xam nag problème am na donc comme problème am na moo taxoon mutinerie bi bu mu amee daanakaan daanakaan du ñu bett te parce que xam nga contrôle ak ak euh, détention ñoo ànd il faut ñuy contrôler mhm. parce que contrôle boobu ñuy def c'est pour la sécurité de l'administration pénitentiaire mais également c'est pour la sécurité des détenus des détenus n'est-ce pas peut-être li ñu war a xoolaat mooy système de sanction pénale bi. Mhm. peut-être y a des yoo xam ne war nañ ci mën a war nañ ci mën a réfléchir. Mhm. bu dee des infractions primaires même man ci recommandations yi sax boole naa ko si des infractions primaires yooyu ordinaire daal yu xaw a ndaw ndawaan yooyu laajul peut-être yenn yenn yenn peines yi. Mhm. n'est-ce pas peut-être mën nga am bracelet bracelet électronique après nga dem ak système de cautionnement wala bu dee ay infractions. infraction wala wala wala délit financier genre yooyu defal la benn bracelet électronique yooyu peine alternative la nga dem di fay di rembourser ñu boole si benn amande xam nga nit ku ñuul moom boo ko fayeekoo ko rek ku ko fayee ko rek la bañ daanaka loolu aussi pen la mhm. mais dajale ay nit également ci benn chambre ñuy tëdd tëdd suba tëdd ngoon loolu aussi dafay da war nañu xool mais gisee keroog image da yaakaar ne détenu yi dañoo salfaañe li nga waa am na ci euh, parce que ñoom aussi ni ñu filmer parce que li li li indi choc bi mooy filmer bi ñu filmer mhm. non seulement dootoo xool façon bi ñu leen doon fuyee mais également dinga xool également condition yi nga mhm. xam ni moom la ñu nekkee n'est-ce pas condition bi ñuy tëj ak étagère mhm. yooyu ak niveau bi dangay gis aussi boo dee kuy xalaat di nga xam ne période tàngaay bu ñëwee foofu dina tàng dina metti aussi te amul climatiseur ay ventilo moo fa nekk n'est-ce pas te ay kii lañu n'est-ce pas donc loolu aussi frappé nañu beneen bi mooy administration pénitentiaire man du ma leen jaawale ak ay prisonniers parce que garde nit aussi yombul. xam nga garde nit dafa diis. ba pare problème bi mooy dama yaakaar ni ñoom aussi il faut que état xoolaat seeni conditions. parce que administration pénitentiaire c'est des c'est des gens vulnérables ah c'est des prisonniers parce que dañuy toog suba ngoon di leen garder. ba aussi est-ce que ñoom am nañu rémunération bu ko jar. parce que ñoom ku la ci romb daa daanaka day dox. yor moto. yaa ngi dégg ba pare toog di di la garder nit boo xam ne dañu ne kii peut-être la wala kii il ne de toutes ses facultés yaa ngi dégg loolu dafay dafay indi toujours ay problème donc ñoom tamit mën nañu mënoon nañu xool seen système seen condition de vie mhm. condition de vie bi état war na ko xool mhm. te yooyu yëpp également wax nañ ko ci li nga xam ne moom mooy assise parce que fii aussi benn parenthèse la peut-être bu malheureuse boo xam ni président de la république son premier ministre ak ki nga xam ne moom mooy ministre de la justice dina ci war a mën a jël ay ay ay dispositions mhm. mais yi ñu doon sànni parce que gis naa sax ci vidéo bi ñu toog ci biir ci biir euh, chambre bi euh, taal taal benn affaire mhm. te xam nga foofu détenu boo xam peut-être condamné nañ ko à perpétuité amatul confiance mhm. mën na sotti essence taal foofu yooyu yëpp mën na mën na mën na ñëw te te c'est pas sûr moo tax moo tax formation bi formation psychologique bi aussi dafay dafay dafay dafay am solo ci ñoom mhm. nest pas xoolaat également les peines alternatives nest pas parce que justice bu bu bu mat boobu boobu kenn amu ko même l'islam sax ummatan wasatan rek lay wax maanaam le juste milieu mhm. n'est-ce pas di xool grâce également parce que grâce yi am ci année bi surtout ci tabaski bi xaw na tuuti par rapport ak yi doon yi nga xam ne yi nga xam ne doon am nit toujours dafa war a am beneen beneen deuxième chance boo xam ne war na koy am